léegi Kandji damay ñëw ak yow ci loo xam ne nii wàllum showbiz parce que Kandji dañoo xëy gis ko ci showbiz bi xam nga tëgg na fi ay soir ak Wally Seck yi ñu mujj a gis mooy mu tëgg ak Sidi Diop bi ñu mujj a gis bi ñu mujj a gis Kandji lu ko dugal ci showbiz waa xam nga ñu ne Kandji production Kandji production c'est une structure de production et de promotion et c'est un c'est structure de spectacle lépp luy spectacle man meeting politique sax mën naa ko produire donc june ne dois ma me focaliser sur la lutte lépp luy spectacle war naa koo mën a produire pourquoi pas soirée meeting politique leneen ak leneen leneen ak leneen Wally Seck bi ma koy njëkk a tëgg dama jàpp ne war naa cee man war naa koo mën a tëgg ngir am ci dara ma tëgg ko yàlla dogal nag mu doon soirée boo xamante ni bii duma ko fàtte ba keroog ñu naan jàppale naaj la. lu tax la ca laxasoo bari. lu mel nan moo tombé woon ak saagam ba. yow yaa tëggoon jamonoy saag waa nag ma la ma ca gën a dama koo jëflanteeg gor piir hmm. waaw. lu ca xew ba jëflante ba ngor feeñ ca. ndax bi soire bi demee ba des trois jours. cegle nañ ñetti fan. man soxna ay dara ak waali kenn du ci nelaw. ndax booba boo fàttalikoo dañu demoon bañ ne Baye Fall dañuy marche te suñu marché ba pare grand théâtre lañ jëm si. pression boobu da ngay xool waali ba mu yàgg da koy yërëm mais muy nit koo xam ne. suñ waxee mu ne ma gënoo maa gore te doo ma gën a gore même bu doon damay dugg grand théâtre ñu fekk ma fa rey ma dama koy way xam ne gor laa jëflanteel gis nga loola moo yombal suñu ànd après grand théâtre boobu ñu def ko defaat ko ba muy quatre fois. réussiroon na ak coow la ci amoon. bi mu commencé sant maa sant yàlla bi. man damaa daw génn saal foog ne saal bi day wàcc. mu fees del del del ndax comme ni mu ko waxee rek ñun one est avec le Sénégal ki rit. nit ku ci nekk da ngay juum. may ñaan yàlla tamit ëllëg doomu aadama yi ñuy pardonné nit ki ku ci nekk Babacar tey mun na def émission nga ne ay émission ba mu def noo kenn du Babacar mais attends-toi à ce que suba nag Babacar juum te bu boobaa nga xam ne du wàlliwu du yeneen du xut bu samaan nit kese la ñu jéggalee ko ko noonu muy nag koo xamante ne bi biñ ko tëggee tëggaat ko ñu mel ni ñaar ñu bokk ndey ak baay ñu dem sax ba bokk loolu ndax sama diggante ak moom du diggante waykat ak promoteur ndax moom boo seetloo wax na ne Kandji du promoteur bu tëgg Wally loolu nag lu ñu jëflante la ma dem ba bu ma duggee seen kër yaayam sama doom la may wax soxnaam bu ma duggee ci kër chéri la may wax ma xam ci moom lu bari moo xam ci man lu bari ñu àndandoo di dox ba mel ni ay frère ay sœur ba ren daaw daaw jéeg je pense si je ma gis sii di Diop ma ne waale amatul lenn lu muy prouver biir saalu Grand Théâtre léegi xale yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw pourquoi pas ñu may leen loxo ñoom tamit ñu jéem a jug kon loolu moo tax nga jëli di Diop waaye. non du leneen. mun beneen problème. non xam nga problème. ci ñaar ñu ko siq lañ koy ñoo koy am ay nit su ñuy ànd te intérêt lalu ko intérêt mooy imaginer di tëgg nit mu ne la du ma la sas demal xool li nga man nga ñëw ne ma lii laa mën a fay. kon Wally mosulaa laaj kese kon. bu dul première ba mosumaa laaj kese te première ba papa moo ko waxaale coon Seck à part loolu a su ma ko woowee manager am ne ko Aziz mu ko man damaa bëgg a tëgg ne ma seen diggante xajuma ci waxtaan leen ñaar ba juboo lu ngeen juboo ñun su ñoon nekku ci. xam nga loola famille la beneen bi ci des mooy fu waali di tëgg boo gëstoo da nga gis kaañ kon xam nga ne kooku problème mun tax a suñu diggante parce que ay nit bu ñuy ànd il faut ñu am esprit de dépassement xam nga lu metteel jamono ji Kandji ak Babacar dañuy ànd ne ay doomi ndey lañ te kenn lu dépassel sa morom dara dépassel sa morom dara mooy damay toog ba mu yàgg kii ñëw sa sa sa waaj hélas ñëw ne ma Babacar a ne la ma jàpp wax jooju mais buñ ne la Babacar ne la bu dee doomu ndey gi ngeen di woote dëgg la war ngaa xalaat Babacar lii mu may wax bu ma ko waxee ban njëriñ la ko amal wala ma xam ki ma nekkal est-ce que capable na lii wala capable ko mais bu fekkee dañuy ànd te kenn ku ci nekk weesuloo sa morom dara ay gor bu ñuy ànd da ngay nangu ne ni nga doonee gor noonu la kaañ doonee gor yow loo jomba def kaañ jubbu ko def ñun ñaar nag suñu ànd li ñu dimbale mooy dafa am fu ma teg ma fu ma ko teg ma lu ma ko dépassé le mu am lu ma dépassé moo tax problème mun tax suñu jigéen te man gëm naa ne su ma amoon problème sox ki na Diouf jaaga moo may woo ma ñëw mu woo ko ma ñëw mu ne ma bu leen bu leen ma fontoo ndax am na loolu suñ diggante te xam na suñu diggante et puis su ma amee problème ak Wally dem tëgg Sidi Diop est-ce que sacrifié wu ma sama bopp ndax sama xaalis laa yor te maa fay kon xa doole doole sa doole kenn du ci xeex de xaalis boo koy xeexee léegi tey nga dëpp xaalis kenn du ko xeexee damaa xool ne Wally amatul benn mit amatul lenn lu muy def biir saal ba mit bu mu fay créé ndax Grand Théâtre mit la woon mais Waly mooy moor kase mit bi def fa ñetti guddi Dakar def fa leneen ak leneen man musuma ko faa tëgg ba ca jour événement bi may jaay billet musaam bi loolu amee nag ma dem tëgg Sidi Diop ci ci biir tëgg gi yëpp dañ ciy waxtaan ma ak moom ba ci ñeneen ñu ko jege moom ñoo xam ne da ciy waxtaan ak ñoom am na benn booy bu ñu wax laay la chef am na un jour mu ñëw sama làmb kii ba pare Waly message ko ne ko très bien kii sama frère la loo ko defal mën nga ko defal kooka bu ca jàppoon dara wala problème tax ko def. elage na ko defe naa wala. laay la chef voilà léegi nag noonu la demee ñuy dem ma tëgg Sidi Diop ba pare yàlla dogal nag bi ñu ko tëggee ba pare mu doon événement boo xam événement bu metti que dafa am fu mu fekkoon artiste bi ñu nit moom jàppale ko ba yàlla defal ko ci ndam. Mhm. ba tey yaa ak ñoom seen relation ak ñoom nu mu demee yéen a ngi déggante wala yéen a ngi moom gën nañ déggante très sincèrement mais Waly moom ba nëgën yi ñu ngi déggante. parce que bu dee dañuy wax dëgg man li ma séq ak Waly séq ma ko Sidi ndax juróom-ñetti at du juróom-ñetti fan du juróom-ñetti weer te bu dul dara séq nañ juróom at ñu ànd ko ànd bu rafet defandoo lu nekk Sidi nag rakk laa ko jàppee comme ni ma jàppee rakk Waly mais tàgge nag day am jàppal diw li ma séq kee nag dëggantaan Ndiaye séq ma ko Sidi nag. li nga séq ak Waly. séq ma ko fi ma jaar ak Waly jaaruma fa ak Sidi mais nag du tee ñoom ñëpp samay rakk lañ te ku ma ci gis lu baax dinaa la ko wax ku ma ci gis lu bon dinaa la may tulli. fan yii passé dégg nga fi seen coow coow lu metti ci naan soirée bi toj nañ ko fii ki yee ko toj coow lii jàppal bàyyil donte sax euh, waali dégguñu ko ñu mu wax wala siidi mais loolu tam yow noo ko gise ak loo leen di wax ñoom ñaar. xam nga dans la vie ce qui est plus important c'est d'avoir un esprit de grandeur et savoir passer à une vitesse gis nga dafa am loo xam ne gis nga Babacar tey am na ci loolu su ma la ko waxee yow au lieu nga tontu ma da ngay xam ne lii maa ko mag ma ci tontu. waale boo gisee du wax ci wax ji te man damaa xam waali te kenn ku ci nekk dangay ngay wax sa aqulaay taala waali moo ëpp yooyu yooyu ay détail la beneen bi ci des gàllaaj ak chauffeur versi la gàllaaj jëm bër entraîné gàllaaj ab artiste liggéey Sidi sama rakk la waxoon naa ko dama ko naan xam nga ma koy conseillé mu ngi ci voie am bu baax man naa way nit ñi bëgg nañ ko na profité wu ci loolu góor góorgóorlu liggéey respecté ay andi démbam jàppale ay nitam fonk ay way juram jeex na bu ko defee rek yàlla may ko ndam mais coow li ci pindub teen bi gars yi amul baag la am na ci yoo xam ne bul nangu kenn ku la ci dugal ay Babacar noo yaa man Lamine noo yoroo seen morom ay nangam yooyu xoola ay Samba yaane ngaan rek ko wax. yaa na ngaan daxanaa mooy. gii di joor na rek lay déglu rek lay déglu léegi nag yow mi nga xamante ne bi bu neexee bërëng la. sa bërigo la bu defee dara yaa ko moom bu deful dara yaa ko moom yaay xam bërigo bi nga yor nan laa koy bërëngee su ma gisee xeer wu ko war a dëngal ma jéggali ko xeer wi su ma ko gisul bërëng mu dem mais am na ci yoo xam ne du avancé loo Sidi du avancé loo Waly te man xam naa ne Waly xam na li ko arrangé te mi ngi ci kon Sidi dama koy ñaan moom it na xool li ko arrangé mu nekk ca ndax lu ko nit ñi xam bu tëddee moo ñu gën a xam boppam kenn ku ci nekk xam nga la jig waaw. Ndiaga Mbaye de noonu na yàlla na ko yàlla yërëm noonu na moytu leen eh, yaaman ñi fi ne ku ne am na koo saf. non xam nga problème bi mooy Babacar mi jënd tilem yorob commande am doo kenn ku koy forcé ne ko Sidi ngay jàpp non Babacar ay li nga xam ne moom la bëgg mu jàpp ko seetaan ko. mooy seet waal yi wala Sidy Diop ku ko ci neex kenn du la may billet entrée yow yaay seet ko la ci neex bu affaire jàllee nga dem seetaani ko kon sa billet yaa moom sa 10 000 yaa ko moom kon nag kenn du la àndaloo kenn waaye nag la kee di way day am ñooñu nag ay ndaanaane waykat lañ ndax seeni ndeysaan daa sori man sama kalaas gi sama ndeysaan daa sori pour nga génne ko dafa xaw a sori Sénégal nag melomaan yi bëreetut waaye déglukat musique yi bëri na melomaan nag mooy ki nga xam ne da ngay wax mu ne ndeysaan daal di biiñ kooku dafa am lu ko laal waaye koo xam ne tama yi dangay ngay peeg da ngay roof galan yi mu peege da ngay roof peeg yi séere ndënd mi tal mbat ji dem ñooñu lañ xam ñooñu ma ngoog mais Sidi man xam naa ci waale yi wallaahi lal azim yéene wu ko dara lu ñaaw te man xam naa Sidi ndax kenn ku ci nekk am na lu ma def ak yow Sidi am na benn consacré naa benn huit mois boo xam ne su ma gisu tey bu subaa dinaa ko gis xam naa ne moom waale la bëgg Sidi day roy waale ci lu baree baree baree bare te xam nga ki woo seenam nga ñëw mu yëkkati micro jox la yëkkati nit ne ko teralal leen ma ko ne ko saa yu la neexee dee fi ñëw kooku ba ñu la. léegi nag nit ñi dañuy wax waxa wax ba fekk bekk suukar mu toog ñu dugal ko ci pot ndaa. loolu dina wóor mbaa. ah ndox daa toog ba mu yàgg deelee suukar ne damay jaale baa ji ne ko bul dem mu ne ko damay dem mu ne ko bul dem waaye daa dem ba jege dëppaat ñëw ne ko cey fekk naa ndox ma ngay jooy rek mu ne ko ago boo àggoon doo ñëwaat kenn ku ci nekk xam nga la la jik xam nga li baax ci yow nekk ca te xam ne sénégalais yi man daal li ma te li ma gën a tiital nag ci réew mi wax lu ñaaw def lu ñaaw xas ku la gën moo fi may tur léegi. Iran Ndaw bi Sidy Lamine Niass nelawee dafa taxaw wax lu am solo dana réew mi fi mu toll ku tiitu dof piir nga buñ demee ba réew kenn yi ko téewoon di dem saa yoo xëyee semaine bu nañu tàggee la kilifa googu dangay ngay dar sa gémmiñ lu ñaaw li di gën a yokk mbon gi di gën a yokk da ngay dem ba nga ne senegal est-ce que am amati na baax te pourtant am na de lu baax dañuy dëxës lu bon la ñuy siiwal fi ne tey soo demoon yóbbu ay don ci daara da nga koy envoyé kañ mu jël vidéo ba loolu ci suuf waaye buñ demoon tappe Babacar ci benn kër xale bu jigéen mu def yaramu ne ñu kii ñu sànni ko vidéo ba day laaj paas boo xam ne day day njëkk a bind li xew gaa yëpp dugg ci estati bi sa waay lan la sa waay lan la mu send leen ko mu tasaaroo <laughs> te kenn kum ci doonoon sa mag wala sa nijaay wala sa rakk wala sa doom doo ko def suturaalante moo jeex ci réew mi yërmande moo jeex ci réew mi kersa dafa jeex ci réew mi ndax gone bu bëggee gudd fan day maytug fiir ak ak mbëpp sëñ Fallou nee na woon gone du day raw mag nag day yërëmi gone ndax yoon wu mag di dox te gisoo fa gone woo yoon amut avenir waaye yoon wu gone di dem te wax yoo yoon amuti mag woo yoon ku ca nekk sa xel war naa tiit nañ delloo siwaat suñuy xel te xam ne fa man yaxmal misxaala sarratin xayran yara waaye fa man yaxmal misxaala sarratin sarran yara lépp lu waay def ci lu baax di nga ko gis lu waay def ci lu bon di nga ko gis te yàllaay léegi vite fait joni joni dangay ngay mu delloo si la ko léeg-léeg nga dégg ku ne yàlla na ma yàlla fay sama xol musiba naaru laay bu la ko fayee rek musiba am te xol yi la nit ñi gënantee nañ delloo si suñu xel yi te jéem a ànd bokk ndey bokk baay kenn ku ci nekk la la yàlla may ñu yéene la ko te xam ne wërsëgu jaam yàlla te risquement indal laa gis nga alxuraan faaw nit ñi di ci delluwaat di ko xool di beqi ndax lépp yàlla wax na ko ci alxuraan mooy cëral ku ko neex may ku ko neex xañ ku ko neex te moom rek a xam li tax mu def ko te du rendre kenn kon nag man mi dib jaam na ma ci dogal ak rek doy maam dafa ñëw ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa loo bëgg ma defal la ko mu ne ko lu yàlla dogal mu ma kookaa noppalu boo ñëwee ne ko maam Thierno jiw jóge def mu ne alhamdulilahi rabil alamin ah soxna diw am na gone mu ne alhamdulilahi rabil alamin lépp ak cant la parce que yeneen yi da nga ciy ñaaw te du jariñ dara li Kandji war a am dina ko am li Babacar war am keneen a keneen noonu mais réew mi daal am na problème boo xamante ne bi ci jikko yi la te Youssou Ndour nee na dégg naa buñ ko bàyyiwul réew du naat su xoolee làmb gën a téye nag suñ làmb ji Youssou nee na dégg naa buñ ko bàyyiwut ah, dana dégg naa suñ ko bàyyiwut réew du naat su xoolee làmbut mais dama ne la suñ xol yi moo gën a téye suñ làmb ji koo séqal léegi bu subaa bu xëyee génn weer la audio yi ngay gis muy fuité vidéo yi génn lu koy génn ñaari goor wax denc këyit léegi la xew mag ñi xamuñu woon loolu may sa biri déggoon code ba mu waree ànd ak sàmbalaw bi dem gile añam goor la ko sédd ndax daara ay ñetti téeméeri xabban toog ñu dënalee bagaan yi ba dara des ci dul yàq mu ne ana may sa biri déggoon code ñu ne ma nga dem gil ma nga dem njob kër Linguère mu ne bu kenn reer kookoo ka Kajoor ak Bawol Fande bi mu dellu si waatee ne Samba be mu ne ko foo demoon mu ne ko njobb mu ne ko ñetti nag la ma lingeer reeroon tegal moom mu ne ko fii de ñetti téeméeri lañ fi dama ne bu kenn reer te ñëwul nag yaa ngi noonu ñu sànni ci tani makkay may sa tendi yi dafa dugg këram ñetti jabar laa moon joor ju ku ne joor nga tudd sant Dieng mu ne leen may sa buri mu ne leen Samba Laobé dafa maa sédd añam gor bu ma demee gille suba lu ma ko war a fayee ñu dugg gisee génn ne ko boo demee dellu si waat ko nettali mënatoo ñu ko jëkkër mooy leen lee taxoon ngeen bokk benn baay ma jël leen dugg leen ci néeg bi firiku bu ma demee du ma dellu si loolaay ngor loolaay garmi loolaa di jàmbaar keroog ba mu demee ba ci biir ba fasu sàmbalaw bi daanu moo dugg ci biir xare bi di xeex di xeex di xeex ba jël fasu aw fas jox ko sàmbalaw bi mu war ca loolaa di gorte loolu la ñuy fayantee waaye wax ju ñaaw kenn du ci fay kenn wax kenn du ci fay bor kenn du ci leb bor nañ jëflante lu baax te li ma ci metti mooy ku la fi mën a wax lu ñaaw ak dàq bu dee mu taxaw di témoigner nit ñi nag mën ngay ne ndax mais yàlla kenn mënu leen nax kanti kanji kontaan naa ci yow. maa la gën a kontaan nag ci li ma gën a kontaanee mooy fi nga ma fekk. ndax lii moo tax ma dugg si ci làmb. waaw ndax ETS borom dër bi mooy entreprise bi nga xamante ni man maa ko créé. ànd ceeg sama mag Abdou Kañ ak ñoom Tafa ak famille bi yëpp entrepreneuriat nag ci sama papa lañ ko jëlee. topp ci relève bi muy loo xamante ni bi lu ma am ci àddina si maa xeera ma ko may moo ma indi ci làmb. te bi ma jugee ci làmb it ci moom laa nekkaat jàpp sama njàmbur. ngi maag yow ba nëgë ni dara ñaawut ma lay wax nag ne la fii nga teg sa tànk fi la defal loo xam wax loo xam xam nga ne jig na la wala jigu la donc nag kenn gënu laa xam sa bopp ni ma ko waxee woon teg ko foofu jéem a seet luy boole nga di ko def. waaw dañuy am plaisir di toog ak kañ parce que li tax mooy message yi dafay am solo lépp day am solo te def naa nit tamit buy wax dafay wax loo xam ne dina war a mën a doon njëriñ ci doomu aadama yi waxal. Euh, fan yële passé monsieur le ministre Matar Ba dafa jëloon benn xaalis teg ko ci suñu loxo bu xeebu bi ñu àndoon ak pap Aline bay ak Aline Mbaye comédien ak yow mi ak buur géwal ak waa géwal dem dimbale ji ko ki nga xamante ni moom la ñuy wax Jibi Ama muy yow yoo xamante c'est des gest à magnifier et c'est des gestes à saluer macha allah kon gars yi dañuy teg foofu suñu ay baaram comme te dem ñëwaat comme ni ko suñu papa Khadim Samb di waxee ñu koy nuyu di ko ziar di ñaan jàmm yàlla na ko yàlla def Sénégal tàppe xol ni ko maam Dabaax doon waxee di bég ci ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñaan corona bi dem ndax itam li kaa ñu wax moo ci ne li mu yàq bëri na bëri na te même bu demee itam yàq-yàq yooyu dina xel di fi nekk waaye nag lu ne mën na ko sañ na ko yàlla nañ ko defaral ba lépp daal mujjee ci jàmm ak salaam ak xéewal rek di bégg ñuy suivre ñëpp di nuyu waa Petersen du mën a ñàkk waaye ki nga xam ne moom mooy ah Amdi Moustapha bu Parcelles Assainies maa ngi koy bëggee bu Njaay production gis nga maro mayo Marseille bi ma sol ni moo ma ko jox kon Amdi maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Jib Seen ci mbaxane bi moo fi génn Petersen di nuy jaaykat yëpp di ñaan Sénégal jàmm